maa ngi remercier ñëpp di remercier responsable politique yëpp yi fi nekk di remercier waa benn Bokk Yaakaar yi nga xam ne ñu ngi ànd di politique man naa ci citer monsieur le maire ak euh, madame Seynabou Gueye Touré bi nga xam ni mooy présidente conseil départemental di wax ni que dañu toog ñu xalaat jeunes yi nan leen di mën a dimbalee ma ni jeune boo koy mën a dimbalee au lieu nga ko koy may jën chaque jour da koy jàngali napp jàngali napp mooy nga jox ko une capacité jox ko benn meilleure position pour mu mën a dem wuti liggéey parce que liggéey rek y a que le travail qui anoblit et liggéey lekk sa ñax loolu moo lay tax nga yokk sa dignité dugg vraiment dans la vie active moo tax ñu ni comme y a beaucoup de jeunes yi nga xam ni ñu ngi ci Jakarta yi ñu ngi ci dëkk ñu ni ñii bëgg nañu liggéey donc nañ leen may possibilité ñu am permis bu ko defee ñu mën a dugg dans la vie active parce que permis permis léger yi ñuy def mais après ñi ci am permis léger bala ngaa wut permis poids lourd il faut nga am permis léger après dañuy continuer formation bi dafa leen permis dafa leen permis poids lourd aussi bu ko defee usines yi nga xam ni ñu ngi fi bari xam nga le département c'est un département minier dañuy soxla toujours ay chauffeurs dañu soxla toujours ay ay ay ay nit ñu am capacitation pour liggéey bu ko defee ñooñu ñëpp ñu mën leen a topp tool ñu mën a am au moins seen premier emploi dans les usines yi fi nekk et dans les mines yi fi nekk mën nañu citer ICS mën nañu citer GCO donc loolu yëpp nag c'est pour relever relever la capacité la capacité sénégalais yi fii surtout département Tivaouane ñu mën a am lenn loo xam ne certificat boo xam ne la koy laaj parce que mënoo dem ci liggéey chauffeur te amoo permis donc permis boobu bu ñu ko amee da leen ubbi ay opportunité c'est extrêmement important permis moom ñëpp da ko war a am parce que mën nga toog sa kër sax mu am benn affaire boo xam ne da nga war a dawal oto yóbbu fa kenn loolu tax da nga war a fagaru kër bu nekk normalement war na am benn permis boo xam ne man na dawal et tout ça tout ce que dafay bu benn problème mu war ko jël en charge c'est extrêmement important parce que vraiment liggéey rek liggéey rek mooy anoblir l'homme donc nit bi nag au lieu nga koy jox chaque jour ah du ko jox chaque jour ay jën da nga koy jàngal ni muy nappe bu ko defee mu indépendant parce que tant jeune bi il n'est pas day doon un jeune bi nga xam ne du mën a participer valablement ci développement di Sénégal moo tax loolu la ñuy wax la formation est gratuite pris en charge vraiment complètement par man waaw la formation est gratuite dañ leen di accompagner bu ñu am permis nag même boo passé examen amuloo dañ lay continuer di accompagner nga defaat ay nga defaat ay test ba am ko donc formation bi vraiment il faut que nit ñi aussi def ci importance parce que mënuñu laa jox permis bi te mënuloo parce que loolu c'est un examen national loolu mënuñu ci dara donc ñu leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw présent ci formation bi bu ko defee ñu mën a am seen permis mën a am capacité dugg dans la vie active. xam nga ñàkk xëyu ndaw yi moom waxuma fii ci Tivaouane mais ci Sénégal yëpp la ci monde bi yëpp la parce que bu ñu la waxee le taux de chômage ak le taux de des taux de demande ñi nga xam ne ñi ngi wut bëgg emploi ak ñi ci mën a employé chaque année ah différence bi dafa dafa bari ñiy génn bu ñu la waxee deux cent mille bëgg liggéey. te yow 6 pour cent rek nga ci mën a jël nga xam ne ko kon vraiment wutal nit ñi ay capacité wutal nit ñi ay ay ay ay ay capacité parce que aussi nit bi lay jël mënu la jël di perte xaalis il faut nga am loo mën am loo mën am métier mën a dawal wala nga am métier moo tax formation bi dañuy commencé permis bi yëpp mais dañuy dem ci yenn formation qualifiante yi ah soudure ak yenn yi nga xam ne danañ ko soxla fii ci ci ci ci ci ci usines yi fi nekk ci département bi yëpp ñu former leen ba nga xam ne buñ dee jël dinañ leen mën a wax du ngeen jéegaani feneen jël leen waa département de Tivaouane loolu nag li ñu koy may mooy ñu former nit ñi ci li nga xam ne ñoom la ñu soxla dañuy commencer permis rek mais vraiment on va faire d'autres formations yi nga xam ne dina permettre nit ñi ñu am seen diplôme c'est un diplôme bi nga xam ne dina leen mën a permettre ñu dem bu ñuy laaj chauffeur ñu mën a teg seen chauffeur bu ñuy laaj leneen ñu mën ko teg loolu la ci doon wax. président directeur général du groupe Avenir Conduite Automobile di am contentement vraiment bi ma monsieur le ministre désigné pour ma formel ko jeunesse su Tivaouane bi à la conduite automobile et les accompagner à l'obtention du permis de conduire ah ñu ne vraiment dañu am mbégte loolu dañu am mbégte loolu bi ñu bi ñu bi ñu tànnee ndax lii exemple la bu rëy boo xamante ne suñu politique yi dañ war a jël exemple ci monsieur le ministre Abdou Ndéné Sall ci liggéeyal seen population parce que may nit xaalis neex na lool mais jàngal ko nu mu mën a amee moo ëpp doole te formation à l'obtention du permis de conduire ci loolu lay wax kon ñun dañuy sant yàlla bi ñu tànnee doy loolu pour ñu former cette population là ñi nga xam ne dinañ ci def suñu kéem kàttan ba incha allah mu am ci ndam am ci lu lu lépp loo xamante ni yaakaaroon nañ ko sunu borom defal ñu ko lu kawe suñu njot en tout cas plaisir la ak mbégte teew fii à côté de monsieur le ministre muy œuvre lu rafet li jëmale ko ci population Tivaouane gi yëpp mu ngi naan yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral dooleel ko ba mu sax ci di yàgg am ndam pour mën a gën a servir sa population. loolu dafa nekk milieu boo xamante ni c'est empesté de clandestin. on peut pas faire euh, mënuñu génnee kan mooy auto école ak kan moo ko nekkul ndax dafa jaxatoo fu mu ne nii ah mel ñun yàlla suturaal nañu nous sommes une auto école agréée depuis 2007 donc euh, liggéey yu mel nii yàlla dimbali nañu def nañ ko un peu partout au niveau du Sénégal te tout le temps dañ ciy sawar ndax c'est des actions de développement te xam na ni nit ñi bu ñu leen ni ñu jàngee rek noonu la ñuy dawalee ëllëg. kon ku ci am chance nga daje auto école bu baax ñu defal une formation de qualité ñun ñëpp mën nañ espérer que ëllëg sécurité routière am de meilleurs jours devant ndax ku nekk na nga jàngee ngay dawale su njàngalin mi baaxul dawalin bi mën ta baax ci kaw tali bi te ñun suñu défi mooy ñu relever lool. xam nga kooku c'est on peut faire la police c'est à l'État vraiment de d'assainir le milieu de, de des auto-écoles et de faire un travail extraordinaire pour la sécurité routière ndax mu jàngal dawal dafa wutee ak dox juddu lekk wala juddu naan oto foog nga jàng ko kenn du ko judduwaale mën ko donc ñoom autorités yi ñoom la ñuy xaar ñu dimbali ñu accompagner ñu ba nu assainir le secteur de la formation muy auto école yi te président Macky Sall def nañ ci ay jéego yu am solo ndax actuellement nii daanaka sur la table de l' assemblée am na projet boo xamante ni c' est pour l' auto école obligatoire. sur le nouveau code de la route buy génn bientôt donc bu boobaa am nañ ci yaakaar que ni ñëpp dinañ formé wu bu baax et tali bi dina gën a jur jàmm donc ñu ngi rafetlu action boobu di profiter ci occasion bi di remercier monsieur le président ak ñi mu àndal yëpp ak euh, sunu ministère de tutelle ci action yooyu nga xam ne teg nañ ko pour que formation bi mën a nekk de qualité